la nar a jëm. ah booy daal li ñu wax booy ñeneen ñoo ñoom ba gannaaw suba booy ñeneen pale lañ jëm pale. kaay day xaw a métti moom day day day dool dina métti ku baax maa ngi lay ziar. waaw yal na ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax. dëkk fii Medina. waaw maa ngi dëkk Medina fii rue euh, rue treize ci kanam quoi. maa ngi dégg léegi euh, information bi may dégg comme quoi que ne benn nervi dafa ñàkk ba kanam ba pare dañoo taal motom aussi loolu ndax mën nga ma ciy ñëwaatal. waaw bon en fait man moom loolu fekkee wu ma ko. mais man li may gën a lancer comme message. c'est par rapport ak président Macky Sall. Ah, ah, tey dëkk bi ñun ndaw ñi dafa am suñu gëm-gëm am suñu bëgg-bëgg am suñu vision moom li mu mën ak li mu xam ni ngi koy def ñi ngi koy bàyyi mu liggéey ci jàmm te jox nañ ko mbooleem cër boo xamante ne carrément képp kuy kilifa jox nag ko mais Macky Sall moo war a respecter population bi respecter jeunesse bi gis ne carrément ñun dañu am suñu bëgg-bëgg Sénégal barki alxuraanul karim ñun ñoo ko gën a bëgg bëgg biñ ko bëgg nag moom ci liñ ko invité bëriwul jafewul méttiwul xam nga lan la na respecté population bi respecté jeunesse bi respecté ñun suñu bëgg-bëgg ak suñu vision loolu ci ñaari aspect la mooy d'abord infrastructure yi muy liggéey ñun waxuñu ne baaxul mais dañoo am yeneen priorité est-ce que xam ngeen ne Sénégal benn instant ci dakaar bii nii scanner benn lafi fi mais loolu mooy priorité Macky Sall ay coow Mame Mbaye Niang bii nii moom bu fekkoon ne matoon na dëggantaan kilifa ci ñun luñ ko doon xaare moom waroon na mën a woo Mame Mbaye Niang ne ko jëlal mbir bi teg ko ci suuf mais dafa mel ni faalewul jeunesse bi bu jeunesse bi di dee yoonam nekku si loolu nag du njiitu du kilifa kilifa da ngay am gis-gis bëgg say njaboot xam ne carrément tey ji amul Sall protection bi mu am ñun moom lañ war a am santé bu mu am ñun moom la ñu war a am te bu fekkee ne ñun dañu bëgg Sénégal moom moo ci war a njëkk a mooy jàmm parce que kilifa diine yi li ñu doon xaar ci ñoom benn mooy ñun jox nañ cër Macky Sall mais Macky Sall moo ñu joxul cër li Sénégalais yi di dund dafa metti te ñu ko accepte lu ñu soxla lu simple la mooy état de droit police nañ jël seen responsabilité dëgg la parce que jox nañ leen cër mais du yoon ñun ñuy xeexante ay waa police. parce que du ñoo ñoom ñoom ñoo waroon organiser secteur bi bu ñu leen joxee ordre yoo xamante ne ça n'a rien à ak li ñuy xaar ci Sénégal ñoom en tant que les autorités en tan que gendarmerie ñu xam ne carrément yii ay ordre la yoo xamante ne baaxul pour seen population parce que bu ñu demee ba tiire seen yaay la ñuy tiire seen petite sœur la ñuy tiire donc nañ gis ne carrément Sénégal ëpp na loolu Macky Sall barke Cheikhna Ahmed Tidiane ñun dañ ko bëgg te yàlla rek tax mais moom moo bëggul Sénégalais yi parce que bëgg ko weesuwul benn instant mu am doom ñu may ko jàmm mu am APR ñu may ko jàmm ñu jox ko police ak sécurité ñu may ko jàmm Sénégal ne ka Macky Sall ne ñun jeunesse bi kenn du nekk ci jàmm loolu mënul nekk na jël mbir bu fekkee ne responsable la laay wax nag bu fekkee ne responsable bu fekkee ne kilifa la moom bu li muy woote woo kilifa la ni muy xoolee Amadou Sall na ma ko xoolee man na ko xoolee booy yi léegi ma dama laaj benn question. bismillah wax ci yi nga xamante ne tey dañ leen di dóor fii nañ mais xam nga mbër. mbër na ma yàlla baal. ñun ñoom li ñuy def suñu passion la. ñun li ñuy def ñoom seen ñoom li ñuy def suñu passion la. bëgg nañ ko suñu culture la. mais ñoom ñun bu ñu xewlee. ñoom bu ñu xewlee ñun ñooy njëkk a bàyyi suñu lépp dem seetaan ji leen ñun ñooy dem jël suñuy billets ci kon ñoom ñoo war a conscient xam ne ils sont avec le peuple ils doivent être avec le peuple kon la moindre des choses c' est de respecter en fait l' environnement d' abord ñu xam ne carrément fii nii seeni ndaw rek ñoo fi nekk ñun mënuñu leen soxoree mënuñu leen mais dañoo nekk ci dëkk boo xam ne dañ ci bëgg a teg yoon dëkk bi justice bi dafa demee ñaari boor te warul demee deux vitesses parce que xam la moo tax ñun luñ ko réclamer bariwul mooy juste rek nañu respecté yaa ngi dégg parce que respecté benn instant mooy nga respecté sa liggéey Macky dañ ko jël pour mu liggéeyal ñu ñun waxuñu ko pour muy jël ay fetal wala di dóor ay boy ci ay lacrymogène ak lool noonu loolu gendarmerie ak police yi ñoom ñoo ko war a njëkk a parce que ñun la ñuy rey waaw léegi yéen lan moo war a nekk seen taxawaay est-ce que da suñu taxawaay suñu taxawaay la na ñëpp génn manifester pacifiquement xamal Macky Sall ka neexu carrément ñun xuloowuñu xeexuñu na ñu jox suñu cër. parce que Sonko ba léegi dañ ko man ci information yi ma jot sànq dama gis ne carrément dañ ko dóor ba mu nekk hôpital mais loolu ñu teg ko fan. léegi ana droit aw Sonko yi ana mais Macky Sall ni mu nekkee si jàmm Sonko war na ko mën a nekkee si jàmm mais Sonko bu fekkee ne carrément dafay jógee këram ñëw fii ni gars yi jël ko barricade yóbbu ko. benn instant ñun suñuy bëgg-bëgg Macky Sall ne ñun du ñu manifester suñu bëgg-bëgg ci nit kooku loolu yàlla moo ko may yàlla moo ko xañ moom en tant que Macky Sall may ko Ousmane Sonko kon kooku da ko war a nangul loolu noonu mais lépp rek lépp rek na wane ne kilifteefam moom la ñuy xaar d'abord mu ñëw xam ne carrément na wax bu dee dëgg la bu dee kilifa la ak kilifa diine yi ñu ngi leen di woo. nañ woo Macky Sall ci njëkk ak teranga xamal ko ne ko carrément pouvoir ak nu mënti demee Sénégal moo ëpp loolu Sénégal moo ëpp ay violence Mame Mbaye mooy kan mais liñ ko waxal rafetul même bu fekkee ne du sàcc laa lay wax en tant que démocrate bu fekkee ne carrément démocrate la bu fekkee ne bëgg nañ Sénégal Mame Mbaye Niang laa wax de bu dee moom bëgg na Sénégal coow li daf ko war a teg ci suuf. solution bi lan la war a. solution bi lan la man selon sama proposition Macky Sall nañ ko ñaanal yàlla li ci des bariwul. yaa ngi dégg mu respecté population bi respecte jeunesse bi respecté bëgg-bëggu jeunesse bi ñun liñ ko ameel bariwul mooy dinañ ko muñal kase lañ ko amal mais liñ gis tey jii ci APR mënoon nañ ko faj tey jii nii non loolu xam nga loolu xam nga mënoon nañ ko faj mais ñun suñu diplomatie ma Sall dama la bëgg xamal ne ñun suñu diplomatie dafa dépassé loolu dafa déplacé affaire yii nii Sénégal man ma gis-gis bu gàtt man ñii bëgguñu Sénégal bëgguñu jeunesse Sénégal parce que tey ji bu fekkoon ne Macky Sall tey ji gisoon na jeunesse Sénégal ñoom ñoo nar a dee dina ne police ak gendarmerie ranger leen booy dañuy dellu seen gàlle mais Sénégal am na yeneen projet yi ñu mën a mën a réaliser lan moo tax ndaw yi nii taxaw tey jii ni manifester pourquoi Sénégal bu fekkoon ne ñoroon na ko benn instant dina génn léegi léegi RTS dugg foofu noonu wax ak gars yi que coow bi na jeex parce que man je suis responsable je on doit tout faire pour pour te le calme de ce pays estabilité dëkk bi Macky Sall moo ko yor mais def ñu ko bëgg xañ bëgg na dugg ci jàmm mais bëgguñ ñun ñu nekk ci jàmm ñu koy invité waat ne ko kilifa la moo tax ñu jox ko cëram mais barki alxuraanul karim li gën a métti Sénégal tey ji moo ko fi def li ñuy gën a dund dund bu cher bi moom moo koy yokk te dund bi yëpp benn groupe de personnes la c'est que sénégalais yi ñoom ñoo war a conscient quoi jeunesse bi jël seen i responsabilité xam ne carrément li ñuy def nii li ñuy gis neexuñu ceeb bi dañ koy yokk ci loo xamante ne carrément teguñu ko si yoon ban ban projet ngeen fi gis ñu jël deux cent mille jeunes tas leen ci dëkk Sénégal ne leen bay leen ceeb def fi industri industrialisation boo xamante ne carrément ay usine de transformation la waaye mais projet boobu nag Prodac bi bu demee woon yoon gis nga nit jërëjëf waay jërëjëf da maa gën a relancé vingt neuf milliards yooyu noonu vingt neuf milliards yooyu vingt neuf milliards yooyu bu fekkoon ne dugaloon nañ ko fi ñu ko war a dugal barki alxuraanul karim laa lay wax ni Sénégal tey jii dina insuffisance alimentaire bi fi am ba may leen ma may leen ma may leen ma may leen ma insuffisance alimentaire bi fi am insuffisance alimentaire bi fi am Macky Sall la neex non jaru ko nañ ko respecté nañ ko respecté Macky Sall bu fekkoon ne carrément bëggoon na Sénégal liggéey Sénégal moo gën a yomb su ma toogoon place am barki alxuraan dinaa ko wan ne ko yow xamoo dara parce que compétence bi daf fi nekk am nañ koom-koom bi am nañ suuf am nañ am nañ zircon am nañ am nañ or on a tout on a la jeunesse on a le soleil am benn nit bu ñëw conscientiser ñu ne ñu eh bàyyi leen xeel ci li leen yàlla may daf ko xañ yeneen dëkk may leen ko kon jël leen seen responsabilité ngeen ngeen ngeen ngeen sauvegarder seen i bien Ousmane Sonko moo ñu may loolu ak nu mu mënti demee ñun politique xamuñu ci woon dara lu Sénégal mënti am bu dili yi daan am suñu yoon nekk si xamuñu yëguñu woon mais moom moo ñu ñëw nañu xee xam leen ne carrément benn instant seen dëkk li fi nekk di jaw bu leen ko nangu parce que benn instant bu leen nangu ay jiit yu nekk ay sac di teg ay dil benn instant ngeen koy bàyyi muy dem lool c'est pas normal mais sénégalais yi ana ana man man ana député ministre ah ay ay ay général ak DG benn instant ñoom ils sont te pourtant ay entreprise rek la ñuy jàppale ban ban problème ngeen gis tey jii nii Sénégal ngeen gis tey jii nii benn général wala benn député génn ci ne carrément Sénégal bi lu muy dund di yoon à part ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk yeewi askan bi mais nañu ñu parce que mënuñu mënuñu ñu saaga suñu intelligence lu mu bëgg sa benn Sénégal ñoo ko gën a bëgg bu amoon vision barki alxuraanul karim deux cent mille jeunes lay jël tas seen ci Sénégal tey jii nii kenn ku nekk mu fey ko quatre-vingt-dix mille demal nga xëy pendant deux heures de temps rek lañ la sant demal nga gas benn dugub nga dugal ko demal nga gas benn ceeb nga dugal ko loolu rek lañ la sant pendant deux heures de temps jàngal la ko fii ak un an deux ans bu ñu ko defee benn instant mu jaar ko ci territoire bi jaay ko ci on sous région bi benn instant loolu day développé mais Macky Sall moo bëggul gis lool bëggul gis jeunesse bi di am évolution loolu benn loolu benn loolu la loolu benn pàcc la parce que li ma métti Sénégal dafa bëri yàlla baax na wax na ay wax yu am solo kooku noonu nga xamante muy benn jeune bu dëkk fii ni Medina wax na wax na wax bu am solo sëñ Aliou euh, mi ngi gis nga xam nga ni bal blanc moom nekk na loo xamante ne doy na waar sëñ Aliou xam nga buñ demee ba ci lii nii xale yi di ko for di ko foowee doy na waar. en tout cas c'est c'est c'est c'est c'est compliqué c'est c'est c'est très compliqué hein. Euh, dans un pays comme le Sénégal et sans